mbokki Medina Fall. léegi léegi seen doom njaga bi mu jëlee parole. nee na leen changement jot na. man dama bëgg laaj dama leen bëgg laaj xaw ma tax yéen a may déglu. est-ce que li fi nekkoon depuis juróom-ñaari at. est-ce que pare ngeen pour continuer ci loolu. loolu leen ñaan laaj. est-ce que ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite. juróom-ñaari at defuñu dara. ñu xaar ba élection jege. gis ngeen làmp yëpp a ngi commencé tàkk gis ngeen koñ yi nga xamante ni mu suñu gis oto mbalit ñu ngi commencé gis auto mbalit gis ngeen ñu ngi commencé di dig jigéen ñi ay financement te jigéen ñi seen avec toog nañ juróom-ñaari at gisuñu kenn est-ce que naxe yu leer yooyu est-ce que yéen da ngeen ci d'accord est-ce que jiite ñëw ñu wóolu la teg la pour nga liggéeyal nit ñi nga toog juróom-ñaari at defoo dara nga bëgg ñu tegaat la fi ngay nax nit ñi est-ce loolu moo taxoon ngeen fal leen. donc il faut ñu dellu ci charte yi nga xamante ni mooy war mooy tax nit ñi ñu leen di fal loolu dañ cee war a dellu. xam nga danañu fal nit tànn ko parce que xam nañ ko suñu koñ la dëkk wala ñu tànn nit parce que suñu ville la dëkk wala suñu dëkk la dëkk loolu pratiquement ci réew yëpp am na fa waaye jàpp naa ni lu war actuellement par rapport ak li ñu gis ba tey mooy suñuy fal ñu xool nit ñu dëggu nit ñu maandu nit ñuy liggéey nit ñu ñu dul nax ñu fal leen jàpp naa ni suñuy wax changement jot na changement ci ñu ñuy voté tamit jot na balaa ñoo tànn nit nañ ko xool xool ndax nit kooku yéen xamoon ngeen ko est-ce que su ngeen amoon seeni i jafe-jafe est-ce que da ngeen leen gis je pense que su fekkee ni ci charte yooyu ngeen di fale jàpp naa ni ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci avec Oumar Badiane nekk fii nord à l'est Amadou Louis Ibrahima Mango nekk fa à l'ouest Diop nekk fa jàpp naa ni te ñun ñëpp ñoom ñëpp ñuy liggéey pour ñun tamit ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ville ñu ñoo xamante ni su ngeen votalee nord su ngeen noor nord Oumar Badiane am na beneen carte bi ngeen di votel pour ville loolu pour ñun la bu leen ko fàtte ñu votel est votel Amadou Louis Mango am na beneen carte bu ñuy voté pour pour ñun la en ville ñi nga xamante ni est la ñuy voté suñu ab Ablaye jóg am na beneen carte bu ñuy voteel pour ville loolu bu leen ko fàtte parce que loolooy tax changement dëkkantaan bi am parce que jàpp naa ni suñu gañee ville gañe est gañe ouest gañe nord loolu mooy waral mu am benn cohérence benn cohésion ba li ñu bëgg liggéey ñu liggéey ko ci Thiès te yaakaar naa ni loolu incha allah dana am parce que nit ñi jiite liste yi nit ñu dëgg lañu nit ñu maandu lañu nit ñoo xamante ni am nañu yenn yu rafet ci askan wi nit ñu nangoo liggéey lañu ñooñu bon incha allahu rabbi yaakaar naa ni dangeen leen votel donc loolu moom moo doon suñu message parce que ñi ñu jiitu yëpp seen kàddu yi dañoo gàrtu am solo ñun tamit foofu la ñuy bëgg a yem di leen euh, dig daje ci fan yi di ñëw xam naa nit ñi danañu ñëwaat seen kër yi dugg ci gën a xamante génn parce que au-delà de meeting yi nit ñi war nañu dem ngeen gën a xam aussi suñu list ngeen gën a xam gis ngeen liste bële boobu nit ñi dana ñëw ba seen biir kër wan leen ko jour du choix mooy le 23 janvier 2022 incha allah ngeen choisir liste bële mooy list bu avec bi avec liggéeykat yi comme ça liggéeykat yi ñëw Thiès nekk Nord. nekk est nekku est nekk ci ville bi comme ça Thiès changé ñu ngi leen di sant di leen gërëm